ndeysaan Bébé Diouldé pareegul ma ngay léemu Youssou Ndour nee na pare na kon Bébé Diouldé ci des ndeysaan feeg waxul parewul pare na arbitre bi amul droit siffler te du siffler nee na pare na mbokk yi bi siffler na combat bu nar a gaaw Bébé Diouldé Youssou Bébé Diouldé moo leen féete càmmoñ Youssou Ndour ngeen jàkkaar lool wala moo leen féete ndijoor ñu ngi demee wet mbokk yi 27 juin 2021 à stade Diom Iba Mar Diop Bébé Diouldé Youssou Ndour ndeysaan Youssou Ndour jiital tànk di joor wala tànk càmmoñ Bébé Diouldé jàkkaar jubal tànk càmmoñ ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo Bébé Diouldé ngi déplacé Youssou Ndour a ngi mime combat bi du yomb arbitre bi nee na boole leen julde Youssou Ndour ndaysaan Youssou Ndour moo la fete ndi jox Bébé Julde Youssou Ndour dinañ xeex ndaysaan ñoom ñaar noonu Youssou Ndour Bébé Julde yoon na léegi door benn coup daw génnaat ndaysaan Bébé Julde Youssou Ndour ndaysaan Bébé Julde dinañ xeex ñoom ñaar Bébé Diouldé dóor na Youssou Ndour ko remise dalul tibb na suuf raxasu moom Youssou Ndour na dóor jàpp na Youssou Ndour Bébé Diouldé jàppante nañ plaqué na ko mu bañ Youssou Ndour Bébé Diouldé Youssou Ndour a ngi jàpp ci seconde Bébé Diouldé na ko laa ilaaha illallaah ñaari xale yi fu ñuy mujj Youssou Ndour Bébé Diouldé jàpp na lu mu bëgg Bébé Diouldé ndengeñ na ko ba pare di ko déglu Youssou Ndour Bébé Diouldé Youssou Ndour Bébé Diouldé ndaysaan ñoom ñaar ku ci nekk sukk na sa morom ci ngeeño ndaysaan Bébé Diouldé sukk na Youssou Ndour a ngi door door na biir kit Bébé Diouldé bëggoon na ko kit filaas ndaysaan door ko tànk ndaysaan dooraat na beneen ci suuf faqat na ko jaxabal mu bañ yegg nañ suuf ñoom ñaari xale yi jugaat Bébé Diouldé Youssou Ndour Bébé Diouldé Youssou Ndour ñoom ñaar jàppante nañ ba tey ñaari xale yi ku ci nekk mu ngi def lumu mu mën ndaysaan fan la combat bi di mujj balaake na ko bañ na zongale Bébé Diouldé Youssou Ndour daan na ko Youssou Ndour daan na Bébé Diouldé Youssou Ndour daan na Bébé Diouldé Youssou Ndour daan na ko Youssou Ndour Youssou Ndour daan na Bébé Diouldé ñay joy bu rëy moytul moytul moytul chef amateur yëpp di wax mooy dañu gis beneen Youssou Ndour bu ñu xamutoon ci làmb moom bëreeg ki nga xamante ne mooy Bébé Diouldé daan ko jël bu rëy jël bi ko daanee ak xeex bi bu la wooyee ci xeex bi nga wisee ndax waxoon na ko nee na mooy choisi bu la wooyee waaw waaw saay saay saay bu ñu liggéey nga yàqal ñu mais mais dañoo taxaw ni lu ma moom laay jël sax kan monsieur Ndoye foo jëm Franc laay jël Franc Franc men alxuraan kër mel ni bu ñëwee nga jël.